way. aca ñu ñëw caat léegi nga way. aca ñu ñëw. dimbali ma mbëggeel dafa metti ku waat ah. mu gën a yomb ku ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma jox man ku waate mu gën a yomb ku chéri sama xol bi fi ne yow yaa koy bëggal hmm. ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma jox kii dama jaral ki bàyyi baayam bàyyi baayam ba ñëw ci man ah. léegi maa ko moom muy sama xol te moo may bëggal li boo ko toppatoowul yow de nax nga ko ah. kii boo ko toppatoowul yow de war nga ko ma sàmba ñëw ba ko bëgg naa la mu ne bëggul ma dem ba ñëw ne ko bëgg naa la mu ne bëggul nga ñëw ci këram fekk fa yaayam fekk fa baayam ah. nuyoo moom jàmm santeen moom mu enterré la ah. nga toog ñu servi la boisson nga naan wax la wax neex nga ñëw ci biir kër gi fasal ma géel ñu jël ko may la ko jëm ni mu mel ba kan dafa foor yaayam pertu ko baayam pertu ko gindi sa jëm billaay kii boo ko toppatoowul yow de war nga ko toppatool naxal neexalal te bu ko dóor bu ko saaga te bu ko xas bu ko mutiloo way jigéen matul ay li mu bëgg doom mu moomu la xam ah kii ba ko toppatoo yow de war nga ko waate moo gën a yomb waaw waxukaay bi dafa am noppikaay bi daam koy boo jigéen yow na kontaan ngeen ci seen spécial makkaan bi nga xamante ni moom laa indi woon ànd ceeg ki nga xamante ni mooy sama yaay tubarkalla Fatou Laobé ah, booy doo ànd ak ñun ak ki nga xamante ni moom mooy eh, borom màggal gi macha allah sëñ ñu kontaan bu baax ci ni mu neexee eh, ni nga ko defee ak ni nga ko defee ak xol ñëw nañ gis ne ne da nga bàyyeeku eh, ànd ak ñun waxtaan bi neex na loolu yaa booy mm-hmm. émission bi nag dafa am ay rubrique yoo xamante ni ànd na ci mm-hmm. bokk na ci jomb jomb jomb jomb muy rubrique boo xamante ni tey wax naa la ko bi ñuy waxtaan ci suba mm-hmm. ma xamal na ne bari na si ñoo xamante ni tey dañuy nekk rek au devant de la scène nit ñi topp nañ leen lu ñuy lijjanti metteetul mhm. ba ñu jàpp ne waratuloo jombal dara seen bopp mhm. cat ngay gi soxna nag di yaay mhm. nekk koo xamante ni tey war nga cee mën indi sa kàddu donc avec la complicité de la de dañuy ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Yankoba ak Abdourahmane Fall daal di dugg ci rubrique bi ñëw sama yàgg na a yaatal à tout jërëjëf de retour sur Sénégal 7 ci seen émission bi nga xamante ni dañ ko jagleel spécialement Kan boo xamante ni c'est juste pour les internautes ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla nu ñu mel ñoom la suñu leadership yéen lañ koy delloo mënoon na ñoo télé di def ay journal di def lépp loo xamante ni day aju rek ci wàllu information mm. di leen proposer ay émission yoo xamante ni dina leen soxal waaye ngeen téye seen bopp waaye defoo leen loolu da ngeen a ñëw ànd ak ñun lu ñu def neex na leen da ngeen di dëkk ci di commentaire di woote di ñu bàyyi seen i réaction ba tax na ñun amuñu seen fan actuellement il est 22 heures passées de 9 minutes sur Sénégal 7 la chaîne qui redimensionne vos émotions et qui vous redéfinit ngeen gis sama plateau bi nga xamante ni kenn waralu ko kenn moomu ko dul sama yaay ji tubarkàlla yaa booy eh, dama laa junj sànq nag laataa ñuy dem ci jomb jomb ma bëgg a ñëw rek eh, nga wax ma tuuti rek ana ab artiste waxuma sax yow ndax li nga jombale sa bopp bare na moo tax ba tey yaa ngi existé te lépp a ngi rafet mais am lan la artiste war di jombale boppam jombum lu ñu koy jëppee mm-hmm. mbaa lu ñu koy ŋàññee macha ndax artiste lépp lu mu def fii lay des mm-hmm. say doom say sët say sëtaat mm-hmm. dañu koy xoolaat bu dee jëf ju baax dañ ko xoolaat bu dee jëf ju ñaaw tamit dañ ko xoolaat ah yàlla nu yàlla dimbali dimbali bépp artiste ba xam ni lépp looy def rek am dara lu ñaaw yàlla nag moo yor ndimbal macha allah len na sabab lu waaye yàlla moo yor ndimbal kon yàlla nañu yàlla dimbali amiin yàlla bu yàlla taqalee iblis ba ñu dugg ci naka lu noonu mm-hmm. euh, lu waaye war a jombalee boppam nag bëri na fii ci réew mi mm-hmm. ndax loo jombale sa bopp rek doo ko def mm-hmm. li ngay jomb yaa ngi koy jomb ci seen biir kër wala ngay génn nga naan lii mooy sama cër waaye lii bu sama cër macha allah boo defee loolu boo mhm. génnee ci biti rek doo def loo war a def mhm. waaye bu fekkee amoo kilifa ca biir kër ga mhm. amoo looy jomb ci seen biir kër amoo looy jomb ci sa diggante ak sa ñaari waajur boo génnee ci biti amoo jomb jomb looy jomb dëgg la dëgg la macha allah muy lu am solo loo xamante ni képp kuy ab gor rek war nga koy jombale sa bopp mm-hmm. ndax nag àddina liñ naan mu juga teel maanaam wax ja teel mu juga rafet. mu juga rafet te ñaari minute bànneex wala ñaari minute boo xamante ne dañ la ne yow yaay kii tey. Hmm. warul tax nga am gàcce giiru hmm. dund. dafay lu am solo loo xamante ni dafa mat a bàyyi xel hmm. lool. yaa booy ginnaaw àddina kuy dund di nga am lu la neex ak lu la naqari. la doon wax tey ban anecdote nga ma mën a nettali ci lu la neex. nga xam ne doo ko fàtte moom foo toog a waxtaanee. li ma gën a neex li sama yaay jot a lekk ci sama neex na ma. macha allah waaw ah, ku sañoon am yaay li lekk ci sama wërsëg neex na ma. macha allah te dund neex na ma. Mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla fekk lu bëri ak bépp ndaanaan ak ndax di dund ci sa wërsëg rek loolu gënul dara dàq ko ci àddina mm-hmm, mm-hmm. dëgg yàlla basé wu ma ci kenn sama doole ak sama wërsëg lépp ndimbalu suñu borom la kon maa ngi ñaan yàlla yokkal mu ko yokkal ko mbooloo mu jullit yooyu ma neex ci moom koy gërëm yàlla tabaaraka wa di ko ñaanal bépp jullit fu waaye mën a ne rek yal nay am di ko neex ci xol dëgg la du ñàkk it dina am loo xamante ni même bu dee dalu dul naqari ndax ab jullit nga waaye dina la xaw a touché loo xamante ni tey boo ko fàttalikoo mu xaw a metti tuuti rek waaye da ngay dëggaat parce que yow ba xam batante la lan lañ mën a mën a wax ci loolu caat am naa loo xam ne duma ko fàtte dama naqari mm-hmm. benn xale bu jigéen bu tudd Fatima dafa ñëwoon sama kër mm-hmm. tooñ ma ba pare yóbbu ma tribunal mm-hmm. yàgg na ay année oh. duma ko fàtte mu te leer na ma ni dañ ko yebal ci man mu tooñ ma fekk ma sama kër tooñar bi ma waaw ma dem police ñu ne ko amoo dëgg mu jàll tribunal ak ay pexe mm-hmm. loolu du ma fàtte mu te maa ko koy topp ba tey mm-hmm. teg ko sama diggante ak moom ak yàlla suñu borom ma ko fàtte jamais jamais de la vie ah waaye nag te bi ñu génnee ci tribunal bi ba ñu àtte ñu daf mm-hmm. ma xool ma xool ko mu ne ma di nga xam ni pël piir laa ma ne ko yow di nga xam ni man jullit piir laa waaw tontu ko ma gën a nekk pël amul sama maama nga dëkk ñanga égi bu a cerno aadama gay man sama yaay faati maram gën si lañ koy wax gën si dem ko béere yaayam gën si dem bu béere tàppa pernda demoo ko jur amul kenn ku ciy wax olof ñun noo sëy ci diggante pël rek ak lawbe ci suñu famille diggante la rek ak lawbe ñu ay lawbe fuuta macha allah di ay waa la ñun set nit hmm. waaye bi ma waxee loolu man ko di nga xam ni jullit piir laa moom ma di nga xam ni pël piir laa man ko di nga xam ni jullit piir laa ndax boobu su ma ko waxoon li ñu wax bu safee mm-hmm. ma bàyyi kook yàlla tabaaraka wa mm-hmm. yàlla mii mm-hmm. maa ngi koy fu ma toll rek yal na àtt sama digganteeg jëmu joom macha du ma ko fàtte euh, loolu mu ma gën a naqari sama àdduna mais xam tuuti lu waraloon boobu ah, boo xam ne lu ma bett la waaw parce que doy na waar ko mais nag ñu bàyyi loolu rek jëm suñu kanam. macha allah àddina sax nag buñ la dul tooñ. waaw da nit da yebal nit ci artiste. Oh. détails yi ngay dégg ci artiste yu bëri. Mm-hmm. ay toon ba détail bi nga dégg barki démb ci coon sekk. Mm-hmm. ay tooñ la. dañ ko tooñ. Mm-hmm. dañ ko fekk ba ci biir këram tooñ ko. ci kóolute gu mu am ci ay nit. Mm-hmm. ñoo ñoo war ko. kon loolu dafa am lu existé la. non artiste yi dañuy toll. da ngay gis ku lay fexeel yónni nit sa biir kër. Mm-hmm. tegal la ay plan. Mm. tooñ la rek ci lañ dëkk waaye nag. li ñuy def ak loolu ñu ànd. waaw waaw. jàmm ak pexeem yàlla ak dogal waaye nag nit lu mu ami pexe pexe lool sunu borom a ko ëppi pexe. Mm-hmm. te nee nañ bu taraasee nga puusale. mu bàyyi la tuuti di la xool ba xam di nga génnaliku mu tracé waat nga puusale bala moo tracé waat dalay éliminer dalay éliminer ñu yàlla defal taw feex te yooyu yëpp bañ cee fekk ci barke Seydina Mouhamed yaa booy ñu daal di ñëwaat ba tey di fàttali ne am na ñoo xamante ni ñu ngi ci ligne bi waaw xanaa yankoo ba bu ñuy ñëw rek dañuy jël ñaar rek ñoo xam bëgg nañoo waxtaan ak sama yaay